Eh, ndax mu nga ko mi ngi ko tuddee birul abar. xam naa ko. xam nga ko. waaw oh, da nga ko topp mu ko toppatoo de. Hmm. birul abar boobu. Hmm. moom laa yee ko defaroon. Hmm. sama bàyyi ñu sax defe naa taalix na ko maanaam def na ci commentaire eh, eh, kii Ngaja Bakari moo jur Ngaja Ngaja nag moo jur Aman Ñas ama ñees mi jur Alaaji Abdoulaye Amar Anta ndeyam a tudd Anta Amar Anta ak Buri Anta ñoo bokk ndey ak baay waaw gàjjaay seen baay Amar Anta rek la am ci doom ci góor waaye nag am na ay doom yu jigéen ba tey ngàjja moo jur Xadi Xadi Anta Xadi Anta moo jur soxna soxna jur suñu baay suñu najaay Alaaji Ali soxna ca Taatiguine dégg nga moo jur ba tey anta moo jur ceeg ceeg moo jur ibra ceeg ibra ceeg moo jur alaaji caam ma nekkoon jaawle doon nañ chauffeur nit ku baax ko am jom dégg nga ba tey euh, ibra ceeg moo jur faati ibra mi sëyoon caamen waalo ak suñu baay xam suñu maam tamsir ma jigéen dégg nga fa ah, kii Faati Ibra moomu moo seeg Tamsir ma jigéen am ca Moustapha Thiam xam naa fàttali koo ko moo nekkoon fii ci jumaa ji daan fi nodd amee woon jumaa ji léegi mujj gi gannaaw gi kii la dem caameen xadi anta ak buri anta buri anta mujjut amat buri mujjut sama ndey maama laaji ku baax la bi nga xamee dem na Faas ba wàññeeku jaar Kër Mor Thiam man ñëwee Thiamène Kër Mor Thiam fasu naaru góor la takkalu jox ko waxambaane ne ko demal Tattaguine jëlal ni ma sama bàjjen buri ma siyaara ko ndax moo fi des ku may sama baay moo bàyyi bokk ndey ak baay waaw sama maam man sama yaay bayam ak bàyyi maam alaaji baay bàyyi ndeyam ak euh, bàyyi maam ñoo bokk ndey ak bàyyi <coughs> dégg nga moo tax man ngàjja dama cee bokk ñaari yoon mm-hmm. su ko defee nag waaw ak nduuranta nduuranta moo jur yoro nduur ak jàllo nduur yoro nduur moo jur euh, aminta nduur mu jur maam xadi cerno mu jur korka jàllo mii di nodd ci jumaa ji maam xadi moo jur faat jàllo mii ma dëkkat ak seex jàllo mu nekk Euh, kii njiital parti ci Medina dégg nga ko ak sama Seydou Diallo mi sama gaa dencoon su ko defee nag alhamdulilah ñooñu ñooy waa kër Ngaja ci gàttal ko defee nag Ngaja nag mu juróomal ñes mooy Amat Anta waaw Ngaja moo doon taaw bi waaw mooy taawam Ngaja nag dafa doonoon borom mbit borom wilaya la woon te xale bu tuuti wax nañ ne Euh, baayam maam Ama Ñas dafa doon borom xam-xam nit ñi di ko dikkal fu ne am pël bu ko dikkal doon ko tawat feebar mu di ko fasal muy fas fas yi mat na juróom-ñaari fas pas-pas bu jàngee ba li rek weer ci beneen ba mu paree ngàjja dala gudd jàng xale gu ndaw la ne ko bàyyi mu naa mu ne ko li nga doon waxal pël bi mokkal naa ko mu ne ko tut mu ne ko waaw ma wax nga dégg mu ne ko waxal mu jàng ba àgg ci fa mu doon fase ne ko su fa nga fase woon mm. mun na waaw mm. mu jàng ba ba juróom ni pas-pas yi jeex mm. xam nga lakkal luñ xam wax ko mm-hmm. pël bi ne man ñes deyal xam nga mm-hmm. mm-hmm. ah, baat ba kàddu gën a dëgër yàlla def ca fan yooyu rek mu ànd ak yaayam dem ca tool ya ba ñuy wàññeeku si fekk am na ko fa faatu woon ñu suul ko bàmmeel bu bu bees la yaayam di ko ko fiire ndax ngone gi ne ko nga jaaral fële ma jaar fële ba xam maag yow kuy cël mu ko yaay jaru ko bàmmeelu diw bii nga may fiire balaa takkusaan ma fekki ko mu ne tuub ko baax na ba ñu yil takkusaan rek lañ koy yuuxoo waaw kooka borom la woon waaw Maama Ñas wax benn sëriñ yëpp ne ko ah man day jàng naa ab julit waaye nag xaaju naa ko waat fi mu ne ndax dama am doom joo xam ne dama ko yaakaaroon sama gannaaw yàlla def na jiitu ma bëgg naa ko waat de mu waat ko ba noppi ne ko danaa la jox secret boo xam ne soo ko defee bu neexee yàlla keneen ki ci topp àddina bi dañ ko dégg te dana dund joxoon na ko benn kay fii boo xam ne day wax ne soxna si bu ëmbee na ko wax doxale ci biir bi ah, <coughs> waaye am na beneen boo xam ne daf na ko bu doom ji juddoo na ko raxasee ween yi loolu nag yàlla jox na ma ko moom yaakaar naa ne ci yéen waaw am na ci ñu ma ko jox mm-hmm. Mm-hmm. su ko defee nag mm-hmm. waaw loola moo tax nag Maamalaay juddoo nag mm-hmm. ah def na loola xam naa. Mm-hmm. waaye Maamalaay def naa àddina yëpp dégg nañ ko. dégg nañ ko. Mm-hmm. kooku mooy ñu jigéen ñi. amoon na kuñ doon wax. soxna. soxna moo jur Faati soxna. Faati soxna. moo jur sa baay Moussa Diop mi nekkoon Medina. xam nga këram de. waaw Faati xam nga moo jur Faati Diop. far jóob jur asta mhm. mi sa papa bàyyi ñes bàyyi ci am doon denc mhm. asta moomu nag dama bokk moom ci wàllu ndey ah. ci wàllu wàllu ndey mhm. magam laa moo tax muy wax alaaji surtout bàyyi sa di ma waaw su ko defee moo jur musaa Diop waaw soxna moomu moo jur Fatou Soxna Fatou Soxna jur Moussa Diop ak Omar Diop mi jur Mot Fatou Diop sëñ Ndiaye dégg nga. Mm-hmm. Fatou Soxna moo jur. Mm-hmm. Asta Diop. Mm-hmm. Asta Diop. jur Mbaye Asta. ak sa aji Asta. ak xadi ñas mi alaaji soto awolo woon. sa baay soto. ak roqi ñas may say taata gin roqi Asta. mu jur sama jarbaat baax booba. ah Cheikh Roqi. dégg nga ah, am nañu ay jigéen itam. dégg nga moo jur xadi. ngi doon saytaata gin mm-hmm. Mm-hmm. te jur maam faatu yéen ak ñooñu mm-hmm. eh, kii kooku mooy soxna Wuli am na keneen ku ñu wax Marème Njame xam naa maam alaaji ci ay bàjjanam la ko tuddee woon man maam maama ñes kon Marème Njame moomu moo doon sëyeeg ah, Tamsir alaaji bi tey mi sañcoon bi teyeen Abdou Abdou Jaxate moom nag Jaxate ma ko jur ñes la sant Taïba Niassène la dëkkoon. waaye kii Mariam Diome moomu moo seyoon ak Abdou Diakhaté am naag Abdou Diakhaté doom ji ñoo Amadou Tidiane ku baax la woon lool moo toppoon ca taaw ba taaw bu nga doon alaaji bi tey waaye ka ca toppoon nag mooy Abdou Diakhaté moo doon kii Amadou Tidiane kooku nijaay la ci man bàyyi la ci man ndax sama bàyyi koy jox sagar waaw te sama yaay itam moo koy jox sagar bu ko defee nag kooku mooy Marème Diome Marème Diome moomu ba tey ci xaar baax ci baax ak Mamalaaji ak bëgg bokk Mamalaaji Marème Diome sëñ daara ki mu nekkatoon sëñ daara la bu mag bu doon ay taalibe lool te booba kuy jàngale rawat na alquran da ngay bërim kooroo te dëkk bi yëpp benn teen a fi ne teen bi nag dafay dëy lool maanaam dafay ñàkk ndox léeg-léeg naqaree roote lool taalibe yi di root Mariam Diome nag ca teen ba di root mhm. ah mu jotee fa taalibe yi bañ dóor ko maam alaaji dégg ko mu naqari ko lool waaye borom xam-xam mën a xeex du mën a leen ñoom dëkk ba yëpp te loxoom laalu leen maam alaaji dafa doon def visite courtoisie comme ni président di wër réew mi woo mi ngi amee carrosse carrosse boobu moo commande bolokaat dong ñoo fi am carrosse mhm. oto amul ci réew mi yëpp ndax sama am xalifa wax na ma ne radiallahu taala ba muy dem Makka jaar na Marseille te boobu mooy dixième capitale France ba genn ben auto rek la gis kon bobu auto amut ci adina bi. de nga na waa ji nak karoos gi Amadou cham Baye Amadou cham ni nga xamne moy magi moy yi mooy yi Baye Mat cham mi Ousmane cham mi nekkatoon doom la Amadou Thiam cham woon ak Baba Dali ak ki Mat cham Mat cham mo jun sa bàjjen Amisatu de nga Euh, Amadou Thiam moo jur Momat Thiam bëkk nekk dégg nga ak maam Khady Thierno ak Abi baay yaay Aliou caam xam nga Aliou Thiam le mu ngoog ñooñu dégg nga Amadou Thiam moo doon conduire conduire karos gi maam laa jëm jub nag tey bi mbitiin te dëkk buñ ne dana fa jaar nga xam ne fixé nañu dëkk bi programme nañ dana maam laaj yi dana fi jaar àddina bépp dañ fay daje ñu indi seen i gàtt ñuy rey rey nag yi waaw bay bay penc mi rato ko ah, leeñ gas ay kàmb dugal ci ñu euh, mbalit mi faab suuf si tasaare ko ci penc mi ba xam ne daal lu rafet rek fi ne mbaar mbaar yi te moom bi nag daal di programme maam laaj yi dikk ba jub dëkk ba rek ne amatu jaaral jaaral ci ñag yi mu jaar ci ñag rek si kër si topp ko xëdd te booba ñu ngi togg seeni ñam di pare pare réew mi yëpp daje fi mm-hmm. ñu daal di ne ah bàyyi wéy na kat ñu ne wéy na ñu ne wéy na xay xam na di mm-hmm. ñu daal di yenu kii topp ci koom mm-hmm. mu dem ca dëkk yi ca wàlla ñu fekk ko fa nag ne ko ah sëriñ bi ñun ba dañ laa tooñ te yëguñ ko mu ne waaye na ko gën a xam ñu ne ko ah ñees luñ la def mu ne da ngeen maa duma ñu ne ko duma maa lay taal sëriñ bi yow luñ lay duma mu ne Marème Ndiome mi ga xam ne sama bàyyi ko jut ngeen toroxal ko ca teen ba seetaan ko ak dongo yooyu ñu di ko dóor ah dóoru leen ko man man ngeen dóor te dóoru leen man dóoru leen ma sama bàyyi ngeen dóor waaw ñu daal di tuuba tuuba tuub daal di jégalu maama laa ku yëgoon mbokkam la ku daan sagal mbokkam dégg nga kooku mooy Marème Ndiome xamoon na it ku doon wax euh, Fatimata Siga kooku it maama ma ñës a ko jur Fatimata Siga dafa am ñaari tur yaayam daf ko tud baayam daf ko tuddee woon siga ca tur yi mag ña maam Alaaji nag bi mu dikkee daf doon recensé tur yi nga xam ne dafa wut ak turi saaba yi da koo jëloon def ko turi saaba yi siga moomu baayam aman ños siga la ko tuddi woon maam Alaaji tuddee ko Fatimata moo tax mu am ñaari tudd naan ko Fatimata siga ba mu tuddee siga ca la amoon doom ju tudd maat siga maat si ga moom moo jur mat yaama mm-hmm. mi nga xam ne mm-hmm. moom la abi euh, kii doomi abi ji ummi doon sëyeet mm-hmm. am ca Malick Malick nëbu la ko tuddee Baye Malick mi jur Baraam Jay Baye Malick moom la maam Alaaji Malick nëbu ko tuddee woon baayam baay taxam <coughs> dégg nga bi nga ko defee Fatimata Siga moomu fóolu jin maat siga moo maam mag ñi suñ bàyyi maat siga lañ daan kale gannaaw gi nag bi nga ko ma maam Alaaji tuddee Fatimata mu jur seexu caam seexu Fati. seexu Fati mu jur Baraam caam su ko defee nag euh, ñooñu ñooy jigéen ñi nga xam ne ñoo bokk ak maam ji benn baay moo tax gone yi xamul dañuy wax naan maam Alaaji bàjjo la du bàjjo de ñeent lañ mati mi jut marem mati mu jut baakar marem soxna mi jut Fati mu jur mu Diop ak Omar Diop ak Asta Diop mission bàyyi samaam Aliou Awa la mhm. ak Marème Diome. Mhm. ak Fatou Madi Siga ñooñu bokkat ñooñu bokkat bàyyi mhm. waaye góor nag la amut ku mu bokkat bàyyi ñaar ñii ma rek te kenn kii dafa juddu rek juddu Aliou mu mooy Cheikh Ba ci Cheikh Andoog Mamalaaji juddu na ba faatu ba am bés bu waay Mamalaaji soog a juddu Mamalaaji léppam xéemaan la léppam kiimaan la. Eh, Samba Ndiaye la moomu nag. moo dem kër nijaayam ma ko kumba jaarim ci ndigalal yaayam jayla ños ne na nga dem wuti foofa jabar ba demee fekk na fa ay jigéen fekk na fa koddu ba koddu kumba jaarim tuddee ko ndeyam ak ñeneen e, xëy na sax yaayam ci ñooñu la ko ebaloon waaye ba demee gis fa nag e, corofaal corofaal moomu. moom ko gisee rek la ko daal di bëgg ne moom corofaal la bëgg. yaayam ne ko ah ñu fay mag ma ne ko corofaal la bëgg. mu dox ko ñu may ko ko. waaw doomi nijaayam la ma ko kumba jaariñ. nijaay yi càmmiñ yi kii la jaay la ños. dama laa wax na la jaay la ños lingéer la. ci askanu nguur la bokk. ma kodd moomu. ñu bari ci caddo yi tey. rawat nañ sant Fall dañuy tiitaloo ni kat ma koddu bokk waaw ma koddu Fall la santoon mooy maam yi ceen yàlla Fall ma koddu moomu moo jur Coro Fall waaw moo jur Cendeela Fall Cendeela Fall moom yàlla da ko boo doon ak sa maam Khalifa lu gëm ko bëgg ko am nañu wax sax ne sa maam Khalifa boole woon na koo góor gi Seexu Kuta mu ne sa maam daal tarbiya na ko ba mu àgg ci yàlla ànd ak lim doon doon buur yëpp moom dafa bëggoon a faru sama am xalifa yàlla def ko mayoon du jaab ak xabool dafa dootoon nitu àddina waaye doomi soxna yi doomi doomi buur yi ceddo yi ku ci bëggaan a falu rek te xaw laa jafe da ñëw ci moom bu la ñaanal rek nga falu ceen yàlla baykat la woon nekkoon ngàcc yàlla def nag mu doon bay baykat lool ñëw ci sama xalifa nag ne dafa bëgg mu ñaanal ko mu fadu ko sama xalifa ñaanal ko mu bay fi tool bu mag gerte booba ay téeméeri mbaam ak yooyu ku ko am rek dafay day doon kéemtaan ndax booba gerte gi bëreegut nii ndax naar biñ doon wax Jamil Chor mu nekkoon Ndofane ba mu jëndee mille ci angaram gouverneur senegal dafa joge dakar tal autom dik seet si ko ñu fetal ko fet gu mak xam nga bon booba gerte bëriwut cendeel nag doon baykat bu mag baykat gu mak gogu ci la ko gouverneur kontaanee ci mom bañ nommé ko chef di canton waaw bam falo nak taxutoon mu bàyyi xalifa ba lim fi jog tuddee na sax Cheikh Tidiane dom man nak am naag am am ñoom ak jëflante ndax papa Thiendé la doom ji ñu wax seen bu def naa yow sax war nga koo xam ñoom nekkoon kas naag waaw ndax bustaan ci tolloo gaara su ñoo bu njëkk ba ñoo sosee Seynabou Fall moomu daf daan ñëw fii fi man gàmm ak siyaara di fi andu waaw te itam di ma indil ay teraanga baax lool ci man bëgg li ma booleeg moom nag li tax ñu gën di ko bokk mhm. suñ booloo suñ bokk jiitu suñu juddu mhm. waaye dama nekkoon Tataguine mhm. bis nag ma ñëw ci taax yi jógee caamee ñëw ci taax yi yendu fa nag te añuma ma fekk fa nag sama benn jigéen boo xam ne mu nga fay sëy mu ne ma alaaji añ ñëw ci la de yow taal da nga añ bi di Seydou Fall ne ko maa ko jox añ kiis ma camiñ la bañ ne ko ñas rek mu ñasi fan ñu ne Kaolack mu ne kër Baye waaw kii sama càmmiñ la maa ngi ma bokk Baye. Mm-hmm. daal di dem defaral ma añ bu baax di ko ma. Mm-hmm. foofa lañ gën a jëkk a foofa lañ jëkk a jëflantee maa ngi mm-hmm. waaye ma nga bar saq waaye ku baax la. murit la woon nag moom. ndax euh, kii ko doon denc amee Saloum Sow mi nga xam ne Pape Mbour Sow ko jur Sow mi nga xam ne moom la moon Kaolack. Ceneela nag mi ngi bokk ci Corofaal moomu. Corofaal moomu nag. moo jut Samba Corofal ba mu sëyeeg Samba Jay la ños moo ko jur ak Corofal moom mu ñaane woon ci kër ba ko Kumba Jariñ Corofal nag moo jur ku ñuy wax Mouhamadou Lamine xanaa bon la suñu maam yi daal bëggoon dikk na ne nañ ko tuddee Mouhamad Mouhamad Lamine Mouhamad Lamine moomu moo jur Bakari Bakari mooy Babacar rek mm. moom la maam Alaaji tuddee sa maam sëñ Mbaye mm. sa daaw ay ños ko wooye lu may Bakari mm. mu ngi dekkal cosaan waaw Bakari moomu boo déggee géwél yi am na fu ñuy gindi nit ñi ci leen tënkal maami Alaaji Abdoulaye Ñas mu gàtt lool te yomb mais nga jaag Bakari ak jaay nga jaag Bakari waaw Samba Jaay la Samba Coro waaw ñoom nag foofu lañ xam ñoom ci Samba Coro waaw Euh, Bakari moo jur euh, Ngaja Ngaja jur Muhammad Muhammad moo jut Alaaji Abdoulaye Niass waaw Ngaja Gumbo ñaar lañ ñoo xam ne ñoo bokk ndey ak baay waaye Gumbo moo doon mag jàngi nag mokkal alxuraan ba mokkalee alxuraan moo tax ñaseen lu leen askane lu may alxuraan jàng alxuraan jàng xam-xam di ko jëfe mm-hmm. xam nga al ilm wal amal mm-hmm. mooy wilaaya mooy asul wilaayati mm-hmm. al ilm wal amal xam diine xam yàlla te jëfandikoo la nga xam ku ko def rek daal nekk baliyu jëf ne gu sell dégg nga nga janag moo ba tax li tax ma ne la ñe fu leen dëkkale fu may ci alxuraan ak liggéey jaamu yàlla jajuba la maa ngi daan wax jàngu julli bay jajuba moom lañ ko daan tënkee dégg nga ndax euh, jarbaata mamalaaji ji daan wax diñ daan wax marem mëti euh, doomam ji ñu wax Bakar marem mu muy ñii dëkk ak suñu mbokk yi dëkk ak ñun te mamalaaji dafa fonkoon askanam lool fonk ak bokk ndax ci jaamu yàlla la bokk Eh, Marème Mati moom ba mu amee doom Babacar Marème mm-hmm. Babacar Marème jàng alxuraan ba tari mm-hmm. ñëw ci maamalaay ji ne ko mokkal naa alxuraan mm-hmm. mu ne ko ba nga dalee laan di bind robot ma di la ko toppal ba si boo si daan wut ma xam ne mokal nga alxuraan xam ne li nga wax dëgg la muy bind di ko jox laan muy bind di ko jox muy topp di topp di topp ba àgg saala saayilun mës a yàq benn yàq wala sadda wala dara sa ala saayilun ka naa lasa jooju ca sa ala saayilun mu sadda ko mu sadda lasaa ji mu ne ko xée Babacar mu ne ñas mu ne ko daanuma duma la daan de mare kii mati sama jigéen moo lay daan matee jur mare mati mu jur Babacar mare ah mati it sawar ci moom lool ndax ay sëtam sëtam sotoo mu ne ko mati mu ne ñas mu ne ko bañ nekkee jolof janq jolof ji luñ daan nooy ci sa kii kaana la saa luñ ci daan wax mu ne ko ah ñas daan nañu wax ne de kaana la saa la saa saala ngaar jam jam la duma ko laal jam jam mooy baat boo xam ne duñ ko sàdda mu ne ko mu ngoog <laughs> daanuma la soob jigéen a la daan noonu lañ doon puukare woo ci alxuraan waaw eh, su ko defee Euh, mu ne ko dootoo ko xam le li ci des mm-hmm. li des ci alxuraan ji mm-hmm. dootoo ci am ak sadda mm-hmm. waaw wax na dëgg Babacar maam ko mokkaloon alxuraan la alxuraan la yóbbaale te bi muy dem alxuraan la yóbbaale yàlla may na koy doom yu ñi ci ëpp ñëpp mokkal lañu alxuraan te fonk ko lool lool lool la ko dalee ci moramin taw ba ah, ba ci ah, maam Asiya nag dégg nga ko mbay mi nag moom dafa jéggi woon moom da daan jàng alxuraan ni moom mosatu mi mel ci alxuraan wala meloon dégg nga ko loolu xam nga ñooñu askan boobu koo xam ne alxuraan la ñuy puukare woo ku leen askanee leneen du alxuraan da ngaa waxee sa bànneex waaye gisoo leen ci déggoo leen ci xam leen ko xamoo ko ci ñoom dafa fekk nag wujj ah na yàq naa yàgg jigéen yàq naa yàgg naa yàq wu jëm bañ tuddee ko turum tuddut mm-hmm. dooloo ko lum duhut mm-hmm. te fekk loola jeeg dara xasawu ca mm-hmm. waaye daal alhamdulilahi rabbil alamina ba ngàjja moomu nag jëm kii gumbo ba mu alxuraan ba bokkal ko ñif si nag buñ xëyee ci tool yi ba xañ jot bu añee ba jul tisbaar ba noppi ah, seen baay ba yi ne gumbo mu ne ko ñees mu ne ko àndal ak gone yi dem sa tool ñu kontool la nga jëlee ko ah bàyyi man nag mu ne ko ah gone yi kay nag ñiy bind seen allo yi di ko toppal. Mm-hmm. ñoom la ñuy gontal moom la ñuy gontal. Mm-hmm. su ko defee nag mu daal di mel moom laxas. Mm-hmm. dem jàngi alxuraan ni ko tuuti seen xel yi dafa réyoon kaar. ba léegi alhamdulilah xel yi suul na ci suul na ci njaboot gi. yàlla ba mu fi jóg mukk. Eh, te ànd ak njub su ko defee. Eh, mu daal di dem mu karal alxuraan ngi itam daal di dikk tari moom tari ñu ne ko ah waaw waaw góor nga de wax dëgg mokkal nga alxuraan ko boo foofu dara eh, gumbo hmm. mu ne ñu ko waaye nag la fuut na la de ñu ne ko ah, gumbo dem na fuuta hmm. jàng na xalil lawal ak saani bu mi ngi koy tari hmm. mu ne ah waaye kooku dootuma ko jot waay waaye nag maa ngi wax sama njërs ne fekk ba àddina tukki nañ ma dabal nañ ma dabal gumbo kon alhamdulilah yi mag ñi noonu lañ doon defee tasaabux ak tafaaxur ci baax waaye ñoom duñ tafa duñ def tafaaxur fi allah wali wala wala di déedéet tafaaxur fi fi laahi rek waaw fi alquran wa fi l wa fi taqwa wa fi makarimi l axlaaqi waaw gumbo njabootam mu jur Aliou Paate Aliou Paate boo sa jëkkër Aliou Paate ci gannaaw kalta bi ñu dëkk bu baax la am na juma am na ay boroomi xam-xam am na sama doom joo xam ne sax waaw baayam sama mag la woon ca daara ji ca kaccoot ba ma fa alaaji amul damee ngi di ko Alioune Guèye ku baax ku maandu ku topp sunna bëri xam-xam ku mokkal alquran ku am ñàkk caaxaan moo ko jur Abdul Karim waaw koo fa kër Aliou Paté la ne moo doon nekkoon na limaan ja sax waaye dafa dafa faatu Aliou Paté moo jur Mbay Gumbo Mbay Gumbo ak Bakar May waaw Aliou Pathé ak mbay Gumbo ñooñu ñooñu la Gumbo jur dégg nga ak mbay Gumbo moo jur Bakar May Bakar May moo jur bàjjen Seynabou Amina mi jur Alaaji Seynabou ak Amin Seynabou suñu limaan ju ñaaw ji moo jur itam eh, maam Kadi Roqi ma nekkoon tey ba ñeseen doon sëyeeg Baye Malick Nabou Malick nag bu mu ndaw nag bokkut ak mu mag ma mu mag moom bàyyi maam laa jële Malick nag mii nag maam laa ji bàyyam la dañ ko tuddee Malick na bi mooma Bakar May moo jur maam Xadi mi nga xam ne mooy doomi bàjjan roqi moom la maam laa ji mayoon roqi Faati mi bokk bàyyi laa ji Bakar nday maam Faati bàjjan Faatimata Jaxate maam Faatimata Jaxate ko jur roqi Faati moomu moo sëyoon naag euh, Bakar May am ci adiyu roqi ku mënoon a jàng te am xel te woyof te man taarix ci yi ma leen di nettali ci taarix lu ci bëri ci moom laa ko déggee du fàtte mukk lu mu xam rek jeex na nga kooku euh, baakar baakar maaya ko jut baakar may mooma gumboo ko jut gumbo bi mbokk ak ngàjja ndey ak bàyyi su ko defee nag kooku mooy euh, gumbo waaw ngàjja nag moom برهام آه. باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان